Sénégal ci fitna la nekkoon et souvent loo xamante ni war na mën ñàkk parce que fitna yi li ko fi yëkkati woon yëpp pour man jàppoo naa loolu war na mën a ñàkk on va pas revenir sur vraiment les origines de tout ce qui s'est passé mais am na loo xamante ni je crois que bu ñu jugee ci lii avec les actuels gouvernants war nañ ko mën a moytu parce que xam li am solo mooy la stabilité de ce pays-là et les gens viennent d'en être conscients yi aussi nañu def beaucoup attention sur leur entourage parce que gis nga entourage yi dafa ñoo xamante ni chaque fois ñoom euh, comme comme on dit c'est des va t dire que jàmm bëgguñu ci dara ñooñu la maam Boy Diaw di wax les rentiers de la tension c'est-à-dire que chaque fois pour ñoom jàpp nañ ne dëkk bi fitna moo fa nekk et puis les chefs d'État aussi souvent sont influençables parce que da gis ne moi j'ai l'armée j'ai la gendarmerie j'ai la police je peux faire telle ou telle chose ki ne aussi man je gère la la justice kuñ fi jàpp mën naa mën naa ko tëj loolu mënul c'est-à-dire mënul yóbbu réew fenn on a il y a eu ici des des des, des arrestations à outrance man mi di wax j'en suis un exemple patent man je sais que li ma wax président Wade waxuma ko président Macky Sall su ma Wade jàppoon dinaa mais sous le régime de Macky Sall je n'ai pas dit le un tiers de ce que j'ai dit à Wade. su se j'ai pardonné ah mais mais mais, mais je n'oublie pas. Ouais. j'ai pardonné mais je n'oublie pas. mais cela ne pas dire qu'aussi il y aura une impunité dans ce pays que. mënoo jël nit tuumaal ko ci loo xam ne nii deful dara nga jël ko nga tëj ko man exemple laa ci bu ci gën a tuuti mais ñi nga xamante ne Sénégal dañ la doon tooñ ci loolu dafa bëri la preuve tous ces gens là yu ñu accusé woon fii xëy nañ def benn loi d'amnistie gën a leen ce qui veut dire que ça ne reposait sur absolument rien et le président Macky il a compris cela parce que ministre yi nga xam ne ñoo nekkoon ci poste yooyu que ça soit Antoine Diome que ça soit Ismaïla Madior Fall ba muy def dernier remaniement bi leen parce que xam na ne ñii lu mu dugg ñaar ñoo ñoo ko ci dugal finalement il s'est rendu compte que ñii amuluñ ko benn njariñ mu jël leen mu déplacé leen. aujourd'hui le président de la cour d'appel. oui bien sûr donc xam na ne ñooñu musiba bu mu dugg ñooñu ci boppam. Mhm. dañ ci am une grande part de responsabilité. très bien heureusement que muy muy mu yeewu ci à la fin. Mhm. jël ay décisions parce que même la loi d'amnistie là son entourage les gens ont tout fait pour que loi boobu moom wañ ko dugal. non ils ont tout fait même à propos de euh, des remerciements tardifs d'Amadou Ba. mais Macky ci jouer un grand rôle. Ah moo tax man sous cet angle là xam naa ne man sous je remercie Macky je remercie xam tax parce que acte yu mujjee posé ça va dans le sens de la paix et de la réconciliation mais la nuit bi nga xamante ne ci lañ doon joxe résultat yi Amadou Ba devait faire une rencontre avec la presse. pour wax. loolu c' était en vue de contester même résultat yi nga xam ne mu ngi génn parce que ñoom ñu ngi wax ne il son courage à deux mains en leur disant lool ngeen bëgg a yëkkati teg leen ko ci suuf loolu moo tax nga gis ñu ne déclaration bi ñu bëggoon def bàyyi nañ ko mais comme que moom xam na leen il allait même prendre la décision de remercier Bassirou Diomaye Faye si Amadou Ba n'allait pas le faire loolu moo tax ba nga gisee le lendemain bi ñuy xëyee ñu commencé ñoom son entourage commencé di ko remercier mais ça c'était pas dans leur plan mm-hmm. et loolu daf may ramener aussi sur ce e le président Abdoulaye Wade parce que bi nga xamante ne ab le président Abdoulaye Wade di joxe résultat yi ba nit ñi xam ne président Wade gagné na mais l' entourage de Diouf commençait à vouloir jalgati résultat yi Abdou Diouf a pris son courage à deux mains il a coupé l'herbe sous les pieds de ces gens là daal di woote am na d' euh, waa parti socialiste ñu bëri ñoo xam ne dañ ko ci mere woon. Mm-hmm. en 2012 aussi ça a été la même chose avec le président Wade. bi président Macky Sall am na ñoo xam ne nii dans l' entourage. commencé woon nañ di ko véhiculer ba utiliser certaines télévisions pour ñu wax ne euh, le comment dirais-je n'a pas gagné les résultat donc souvent président yi dañuy toll foo xam ne nii ñoom xam nañ le poids qu'il représente pour l'unité de cette nation et c'est là où je dis mhm. je remercie le président euh, comment dirais-je Macky parce que il a pris son courage à deux mains bi mu enclenché la dynamique de la paix la dynamique de la réconciliation il y a eu beaucoup de il y a eu fi ñu egsi fii peut-être ba nañ fi bañ a parce que les gens l'avaient il ne faut pas libérer les gens là il ne faut pas libérer les Sonko tout tout tout tout il ne faut pas cette loi d'amnistie bu mu jàll et cetera et mm-hmm. mais moom conscient de la stabilité de ce pays parce que il n'est jamais trop tard pour bien faire quand même il a pris son courage à deux li mu doxal doxal na ko et c'est ça qui a permis d'avoir ces images là qu'on a vu au palais et je dëkk moom lu ci gën am solo mooy la stabilité gis nga stabilité bu ci dëkk mm-hmm. le premier ennemi du développement c'est l'insécurité insécurité dëkk bu mu am quel que soit dëkk ba nu mu naatee dara dara du fa am loolu moo dal Zaïre euh, comment dirais-je l'actuel Congo démocratique Congo c'est le pays le plus riche de l'Afrique mais c'est le pays le plus pauvre de l'Afrique parce que toujours ils sont dans une instabilité euh, comment dirais-je permanente heureusement que maintenant le peuple sénégalais aussi s'est élevé mm -hmm. les gens à un certain moment ils ont compris que aussi la dynamique euh, comment dirais de garsa garsa boobu aussi am na fu mu waroon yem les gens nit ñi ne teg toog di xaar élection yi parce que nit ñi élection lañ bëggoon fajee li ñu doon fajee lépp. Mhm. bi ñuy wax dañu ñun dañu bëgg a voter dañu bëgg a voter dañu a voter le jour même où on a reporté les élections les gens sont allés dans la rue pour xeex ba am na ñu ci daal encore ne serait-ce pour dire que ñun dañu bëgg a dem voter. Mhm. loolu je crois que le message a été très bien compris le conseil constitutionnel a joué un rôle en tout cas le rôle qui est le sien puisse se tenir même su fekkee ne les partisans du report aussi se sont toujours démenés pour dire que il faut reporter il faut reporter parce que report bi lu mu doon indi aussi musiba la fii bu ko fi reporté woon fii ba keroog muy ñuy report bi le pays day installé encore dans une instabilité heureusement tout bien qui finit bien et je crois que là aussi il faut remercier le peuple il faut remercier aussi surtout la diaspora bi mhm. des yoo xam ne dañuy sur cinq dañuy taxaw pour voter mhm. sous la pluie je crois que ñooñu aussi il faudra les remercier. c'est important alors Kader yow itam ma ma bàyyi la nga jox ñu euh, sa xalaat ci ndaje bi nga xamante ne moom moo amoon entre ñaari njiitu réew yi. waaw euh, lu ñuy saluer la d'abord lu ñuy rafetlu la lu ñuy euh, loo xam ne seeni nii amuñu ci genn njottu que ni ci bonne intention lañ ko defee. Mm-hmm. mais ñu nangu ni tamit c'est inédit c'est pour la première fois ñu gis un président nouvellement élu. di dem di au palais avant li nga xam ne moom moo di prestation de serment am dem fekki le président sortant. Mhm. parce que lu ci bari dañ daan gis le président sortant dañuy bàyyi ba jour bi nga xam def na prestation de serment am pare na ñu daje toog gannaaw bi mu koy jëbbal lépp ñu ànd gunge ko mu dem kenn ku nekk dem mais vu que ni cette fois-ci contexte yi changé na. et que li ñu gis moom mooy y a des frères ñoom ñoo retrouvé wu et comme j'ai toujours di que ni Ousmane Sonko bi dugg kaso ak Ousmane Sonko bi génn kaso du nekk benn parce que Macky a pris le temps de créer beneen Ousmane Sonko bu bees que non loolu moom moo mhm. parce que Ousmane bi dugg kaso bi muy dugg kaso am na lu bari loo xam ne si manqué woon na ko xam xamu ko woon ci naka la état di doxee am na xam-xam am na popularité mais en fait dafa sous-estimé li nga xam ne si moom moo di euh, pouvoir bi nga xam ne état am na ko ci citoyens yi. Mhm. donc bi mu duggee kaso nag il s'est rendu compte de tout ça et que à partir de là il savait que ni il ne pouvait compter que sur lui-même donc forcément lu bari xew na fa et là seul Macky Sall moom moo ko secourir ci situation bi mu nekkoon et que à moment aussi le président Macky Sall aussi moom itamit xam na ni. Euh, li ko def alors compter sur lui-même ak Macky Sall moo ko soutenir bu ñu la déggee dafa mel ni que ñi mu àndaloon dañ ko abandonné woon. dañ ko abandonné depuis très longtemps. Ah très très longtemps bien avant même qu'il soit arrêté depuis. sax bi mu fi jógee di dem Casamance ak retour Casamance beeg cag-cag bi ci xew ba ñu teg ko këram lu ci bari dama wax ni les vrais militants de Pastef bokkatuñ woon ci la communication de Ousmane Sonko Ousmane était plus proche de Yewwi que de Pastef mais Dieu a fait que les choses dem na ni mu demee ba mu àgg fi nga xam ne ni moom moo di ci kaso bi gis nañ ni nga xam ne ni aussi noonu la ñenn ñi doon